waaw bu fekkee kan moo des kii jàmm Thank you. Jangan Mire, léegi fan yu wóor ma noonu xale baa noonu yàq la jël yéeg ca kaw jeex jàmm école de li dudd baka saala ne bi mu fi mujj ngor la bëree loon la 9 mars moom la mujjee na bëreel moom jeex jàmm génnewul sama ginnaaw taala génnewul sama ginnaaw nee na nekkul ginnaawam da koy toj waaw waaw man eh. gars yi naan mbër amul <laughs> jeexe ngi noonu premier combat am fii la ko bëre woon moom ak Fils de Ndiouga Jamaïcain moo ko tuggoon premier mu daan Fils de Ndiouga daan Ama bu Yoff daan Aliou Fat Fat daan Ibou Afia daan Souley Gaynde daan Milkuso daan Bébé Bismi benn defe lam Diop dee ko daan niil ak fëgale bu ngor moom jeex jàmm dugg si nee na na bagage yi teel ngaa ñëw de booy a ah, booy jeex <laughs> ma ngay leemu ma ngay leemu di jat leemu na laal buntu bi ah ah na day puus nee na day puus nee na day puus waaye mbayaar baa ngi ci ginnaawam mbayaar ba saraxe na mbayaar baa ngi ci ginnaaw jeex moom caatu ngéwél mbayaar ba ñëw na moom tamit berkal lalal bébé Birahim la àndal moom mbayaar bi moom tamit miin na fii ci arène nationale bi lool nee naa leen mbër bu dugg moo bëree nag kilo mburu arrière la dugge arrière la dugge bëreeg Petit Baboy bëreeg Farou Biram bëreeg bébé Diwane bëreeg Caatu Baay Paate bëreeg Ada bëreeg fils de Sallo bëreeg Anaconda laa ilaha illallah caatu ngewel foof oh, waaw waaw waaw fëgg na moytul taxawal bala ngaa daan waaw waaw caatu ngewel ma ngay bàkk xale baa ngi noonu doomu yoof bokkam yaay bébé Birahim ah, bébé mbayaar baa ngi moo ngi nii mbokk yaay baay ji tarkindaat borom tarkindaat event nee na déedéet déedéet la wax de bañ cey mbayaat bi doomu yoo bu feccee mu neex bu bëree mu neex mu neex gaay moom caatu ngir waaw ah, waaw ma ngay jaay de lii mooy jaayu def lu mu man <laughs> ay jeex jàmm dugg na mbayaar baa ngi nii ci ginnaaw waaw waaw ngay baagantey dem di ñëw nee na mën ngeen am na beneen bër buy ñëw seex ndigal a ngi noonu ay ca seex ndigal alaaji Pape Diagne Sera tey ñaata mbër nga nga am bif ak kan ak Babacar ak sa doom baax non suñu doom. suñu doom bul kii nuun di nool suñu doom. Ah, suñu doom baax man la. jeex na nga yaa ngi si jàmm. sant wér ana Jacob. Jacob mi ngi ci jàmm. dina jeexal xale yi de. waaw ñaan yàlla rek. mais léegi ku des. waaw rek. il est temps nag parce que yaa ngi wax moom ak Coyens gars yaa ngi wax moom ak Jackson moo ak Modja moom ak Mama Lamine noo ci wax. yëpp baax nañ bu ñëw baax na. dawoo benn déedéet. la moo tax du ngeen teggi mbër yéen. xam nga xale moom boo nekkee ci làmb di bëre wax dëgg yàlla toujours boo xëyee da ñaan yàlla di yokk te it loolu la quoi moom combat choc rek lay jël. boo xal carrière am bi mu dalee bëri ba léegi bëriwu feek combat bu yomb combat boo xam ne naan ñëpp xam lii xew moom choc rek lay bëri di ñaan yàlla mu dem ba nekk roi des arènes mm. loolu laa koy ñaanal. kontaan ci Ndindi ci tey fils bi mooy bëre de ana mu départ na ah. noo ko andee tey. waaw ah, li ñëpp laa ko andee rek. ah pare na quoi. physiquement tactiquement moralement mentalement. ana sa kopp. ah. kontaan ci yow. waaw lu galas baayu benn. kooku mooy Jules. Ah, jaajëf ñu